ASID TV mooy chaîne patriote yi. tegal ma ko lumière mu wax lu leer waxal waxal waxal. waxal loo waxal loo laa bëgg nga waxal. man laa jógee. waaw mais man xaw ma fi dara. waaw nañ ma nga ñëw. voté voté kan la indi kan moo la indi. Abou Diop non non. pour nga voté kan. non non Abou Diop. pour kan non. Ah? Eh, déglu leen déglu leen moom mooy wax ku ko indi fii ñun xamuñu kan moo la fi andi ak lu tax nga ñëw fi waaw loolu la ko fi lan la wax pour voter moom loolu wax na lu leer dañ may indi pour voter xamu fi dara waaw dañ may indi pour ma voter Abou Diop danaa yéen bëggu leen Ziguinchor bu ngeen voter Ziguinchor yéen seen dëkk ngeen war a défendre noo tudd noo tudd noo tudd grand bu la indi fii nu Boubacar Sanga moo la indi fii nii pour nga ñëw voter pour kan leen ba ASID TV mooy chaîne patriote yi